Ndiaye Ndiaye Ndiaye Ndiaye daje na ak euh, xalaas bu ne mais kii ma kii xam nga euh, interviewé nit ba pare fan ko. Mhm. moom laa def tey waaye bala ñuy dem dafa am suñu benn pape boo xam ne depuis le 10 dafa fàtte ay veeru myopam. Mhm. bu nekk ci benn étui bu ñuul ci benn ci taxi la nekkoon fàtte ko fa. mu mhm. euh, ngi jële woon taxi bi de la force jëm Liberté 6. taximaan képp koo xam ne yoru for for nga ay verre ci sa taxi rek nekk ci benn étude bu ñuul nga indil ñu ci ndax sunu papa ji euh, su dul verre yi daal du baax. day xaw a doy waar day xaw a doy waar lool ci moom. Mhm. Aba ndaw si ñi leen ñuy waaj a jox euh, passe partout. Mhm. Ndiaye mhm. ndaw si. daf ñaareel la. waaye daal aaw ba da koy mënaase de mort. mu jokkoog ñu ne Ndiaye ndoy baan yéen waa xalaas ginnaaw rey gi daa xew. te man taluma ko ma rey. abaa déglul. Eh, man kenn xale laa bi may see sama borom kër fukki at ak juróom benn laa am sama way jur bu góor ma maye woon waaye yàlla def ma toog dégg ndigal nag di sëy rek te yàlla tax toog naa fi juróom-ñetti at yoo xam ne aw ma doom loolee dégg naa ko fi doom yi juddoot nee na ma borom këram juru leen ñu demat ci gendarmerie moom daal ndaw su am fit daal laa lay wax. moom daal nee na ma yàgg na ni ma dinaa la rey ndax bi ma ëmbee sama doom ji mujj daf maa bëmax ba xale bi dañ maa mujj opéré ba ma bëggee dem ci yoon yi jëkkër ji teg ci tànkam ni nañ ko bàyyi waaye nag fi mu ne instant yi nag métier mi ma ne taluma ko ma rey ndax foo tourné ñu ngi rey nit ñi dangay toog dégg ñu ne diw rey nañ ko fekk dañ koo menacé woon man nag damay woote wàllu man lépp lu ma am damay daw di ci jàppale sama borom kër ndax mag moom la dafa ne ni lu ma am borom këram moom ma koy jox te yàlla seede na restaurant laa yor képp ko fi baax dama lay toggal macha allah maa ngi ubbi sama resto di liggéey sama liggéey jàpp sama njàmbur te nit ku ne ngaa jàppale sa borom kër. ndax daal danaa yuuxu ba fu sama baat yam ndax lii bu jugee bu ma fa duggee ay doomam fan yi sax li ma xaw a mooy dañoo dem ci yoon ndax dem ba dossier fi mu ne la ñuy xaar mu décider pour daal mu may jàmm ndax man xale laa damaa doom yi ndaw sama avenir ngi sama kanam te sama métier moom rek laa yaakaar ginnaaw yàlla. damay jàppale sama borom kër ndax euh, ba may doog a sëy dama déggoon boobu ma nekk xale mu naan ko di nga dund ba dee doo am kër man nag yaa def nag ku ma mës a liggéeyal muy société lu ma fa mës a am rek damay ñëw dénk sama borom kër ne ko loo xam loo ci xam defal yàlla def mu tabax ci ñu tabax ci benn ci suuf aw bi ñëw dëkk ma dem dellu tabax ci kaw war a dem dëkk mun ma boo fa duggee ma rey la samedi bi passé nag dem naa duggal samay bagage ndax ko mbir mi moom mi ngi ci mbirum yoon moo tax ma xaw a ñeme tuuti sax daal di dem dugal samay bagages waaye daal fu ma taxawee ay doom di ma saaga nee naan ma caga nga taxawaalukat nga lépp nga te man lii mooy sama métier. société yu bari laay liggéeyal société bu fi baax rek maa ngi lay liggéeyal waaye nag li ma ko may loolu mooy damaa teel a am jom rek liggéey ak jàng naa dem ba niveau terminal kon nag réussir ma ci njàng waaye am naa métier mu ma yàlla jox moo xam ne tey su ma togg ñëpp xam ne man ñi maa togg. daan man sama famille jëkkër mën naa ne sama jëkkër benn sœur la am. ñoom xamuñu coow xamuñu histoire fi mu ne nii ba ma demee ba sonn ne dama koy médiatiser. sax xam naa du leen gënal waaye nag man fi mu ne damay sàmm sama bakkan ndax nag damaa yor doom yi law sama jëkkër mag la fi mu ne nii. waaye nag yàlla def na man boobu ba tey ma di ko toppatoo ci lu mu ne ci laa ne. bërki ma duggee ca biir kër gi dañ ni ma làmp du fi tàkk ndax sama courant ñëwagul lampe fay yow mën nañ laa sotti dara wala ñu gaañ la ah moo tax nag fi mu ne ma jug te fi mu ne nii foo tourné dégg ñu ne rey nan la te man fi mu ne sama taaw fukki at ak ñett rek la sama taw bi ma mujj am huit la am talaguma dee gën moo tax nag may woote wallu te xam nga rek boo teelee ñàkk say way jur nga boole yàlla la borom kër mu nekk mag danga koy jàppee way jur rek. man sama petit prince dama koo bëgg ba rus naa wax jabar ji lu ko naqari ni ma bëggee sama jëkkër moom moom di sama wujju noonu laa ko soppee waaye nag li ñuy wax ne dañoo toll ci jamono joo xam ne seytaane moo bari doole ndax boo dee xale nangoo liggéey am jom takk sa ndigg di fajal sa bopp say soxla dëkkal nañ ma dëkk bu nag kër gu ne boo xee mu ni dangay taxawaalu caga nga amoo dara xam nga rek wax ju ñaaw yal nañu yàlla musal ci wax ju ñaaw te doom yi ñoo bokk bàyyi dara mënul ñaaw dama damaa bëgg sama borom kër sama petit prince boobu bugguma dara jot ko waaye nag bu fekkee dangaa réer nit ñi di la jay naan la sa wujju xale wii nangam nangam ji te fekk loolu araam amul keroog yàlla seede na ni ba muy tabax kër gi ma koy jàppale muy tabax fu ñu mën a toll ba ma demee ba jeexal damaa jël sama or jaay rien que bëgg rek jabar ji dugg ci kër gi wallahi azim ak sama bakken laa la giñal xam nga ni man mii moos jàpp ma dara waaye nag suñu ma naree rey ci erreur du ma dawal woote ji wallu man nag damay woote wallu awa awa dégg nga ndaw si kii de moom mën nañ xale yu bari mën nañoo jël ci moom exemple ban mhm. gis nga yónnee naa la euh, photo bi ah. ndaw soosu la te paregul ci wax ji de njaay mhm. ah déglu ko maa ngi woote wàllu ndax euh, dama ne nan ma yóbbu xalaat fu ma mën a yóbbu nañ ma fa yóbbu ma woote wàllu ndax euh, defe naa ni problème bu am ci réew mi soo ci taxawee yàlla def ci ndox mu sedd guy man na xuloo ma xeexuma defantewuma xale bu ndaw laa tool sama bunt àdduna yàlla may ma métier damaa nekk xale te tey suma sañoon njaboot gi ñu yàlla boole man ak moom ñu nekk benn ndax nag ñoo bokk seen baay te sama borom kër dafa nekk nit ku baax ku bëgg njaboot man mi tey su ma neexoon ni aawam la gën a fonk teg ko ca kaw te su ma neexee waat ko ci kaamil ndax du toog wax ci moom lu ñaaw barke alxuraanal karim bëgg na aawam bëgg na njabootam waaye dafa fekk dañoo ci réew moo xam ne teel loolu la ak nit ñi dañuy wax fële ñëw dajale fii indi ah ñu gaañ li ci erreur te man talaguma dee ndooy ndax man sama njaboot gu sew gi bu ma dee ku leen di ku leen di téye ah xool nit rek ne ko dinaa la rey dafa ñaaw dafa ñaaw na delloo si suñu xel ci yàlla te xam ne àdduna lépp fii lay yem man de yéenewu ma ko dee yéenewu ko lu ñaaw yéenewu ma ko njabootam ndax njaboot googu mu yor ak sama njaboot ñoo bokk benn baay dara du ko dindi man tax ni juruñu samay doom moom mu wax ko moom ak njabootam. ba tey neex na ndax ku leen gis tey dañu man ne ñaari guddoo yàlla rek a sañ te moo mën a atte man samay doom nuruwun ma ndax réew mi dama fekkee ndax tey jii may wax ak yow pont de bii bi ñu koy transformé c'est ma gàddu seen i añ ne tax ba ne inauguré ni Macky Sall inauguré man leen man mi lan waroon a ñëw njëkk a félicité ndax maa doon togg di leen jox nii leen ndax ba ma nekkee xale ñu may ma ko mu def ma comme doom yar ma yiir ma yërëm ma kon man lu ma war bu nekkee mag di ko toppatoo nag sama petit prince boobu bëgguma dara jot ko. sëy bi sëy bi moom dama koy sëy ba mu jeex rek. waaw fu mu yem ndax sama góor gii nag du ma nekk ak moom bay ñaar fukki at ak ñett xëy di ko abandonné ndax moom laa xam moom laa miin waaw mooy sama bàyyi doom jaw faraag ma jaw an waa porté naa ko plainte am at plainte am na ko nag depuis ba ma ko dalee plainte ba tey munu maa may jaam fu dëgg yàlla fu ma xam rek daw naa fa wal wuute wallu ndax man kat fi mu ne nag comme nañ ko waxee woon rek bu ma reyee ma perte di te nag damaa war di fël-fëlaale di continuer di di def ba mu baax nag wax dëgg yàlla nag nii daal laay def. tey ñi maa xeex moom man dooy sama yaram wi dama koo bëgg du musumaa xeex moom moom daal day dajeeg man di ma saaga ndey ay doomam di ma saaga ndey ñu may wax lu ñaaw caga nga dangay taxawaalu lu ne daal lan may wax waaye musuma leen a tontu nag ndax man nag damaa jàng école xam sama droit ndax nag li ñu tubaab naan lu au-dessus de waa nit nag lu lay jaaxal da ngay dem ci yoon man moom nee naa leen bu ngeen sonn du ma sonn ndax nag dëkk bi dëkk bu yoon la xool nit nag juróo ko jëndoo ko nga xëy ni ko dama lay rey dafa métti te chaque jour nii la chaque jour nii la heure bu ma gisee moom daal bi mu waxee waxu tribunal bi ci laa am jàmm nii fan yii waaye bu dul woon mbirum tribunal bii ñu commencé ni dañ koy yóbbu heure bu ma duggee ñu saaga ma fi mu ba may tuxu sax dangay gis ne. ña ngay def lu leen saf waaye nag man dama leen a lijjantiwul ndax man dooy nee naa sama yaram yi dama ko bëgg xeexuma xuloo ma dafantewu ma te nag di ma toroxal suma koo xool nag ci bët ndax fu mu jaar duma fa jaar man dan maa yar ci diina yar ma ci lislaam sama yaay nekkoon nit ku baax jigéen ju baax ju yar ay doomam ñun sëy rek lan ñu sant moo tax nag amul sens ndax moom ki mu dajeel moom pikal pee la ko fi jëlee ñun sëy rek sëy bi dañ koy ñiit ba ñettaatu ko toogoon suñu jëkkër joxuñu sax dañuy dugg déggoo ma de buñ ñu joxul sax dañuy toog di sëy man sama góor googu laay tiitaroo mooy sama xarit c'est mois moitié c'est mon moom mon petit prince à mois dara du ko dindi jaw faraag ma jaw xoor sama xol li ci neex mooy man dama ko jàppeewul wujj ndax booy wujje dangay wujjeek sa morom man dooy cinq heures du matin laa jug dem duggi restaurant laa yor te ku ne xam ne restaurant amul noflaay soo paree damay sang sama yaram yi ba mu set kañ sama lu nekk sama lal benn law noppal sama yaram yi récupéré lii de am naa jotam waaye jotu taxaw ci mbedd yi di welwelee ka taali taali ñu lay asib fii wala ñu lay yàq taluma ko mënuma ko xalaatuma ko damaa yor njaboot goo xam dañ maa fonk bëgg ma te yaakaar na man samay doom sañu jël seen gimin ubbi ko teg dara ci deram buñ ko defee ma rey leen waaye moom ay doomam nag may seen moroom fu mu daje danan ma saaga ndey danan ma xas wax ma lu ma naqari waaye ba tey di ma xeelu waaye ba tey méttiwu ndax man damaa bëgg seen baay te neenaa ku bëgg ginaa bëgg cuujam neex na ma lool ndax seen baay bi ma bëgg te dara du ko dindi. ndax fi ne nii kat moom nee naa leen wutug la jot na ndax maa ngi nii daal defe naa ni boobu ba tey samay nelaw sax doyatul man daal nañ ma dimbali daal man daal def maa bëgg a rey la wax te man dee dama ko bëgg gudd na gën. Njaay am nga gan. xalaas a ngi noonu de. ma ne ko xalaat sa ngi noonu et li ma ci gën a neex mooy mm. euh, AIC passe partout lañ bokk. ah ah xaleer. <laughs> waa Kaaru Fajar. waa Kaaru Fajar. ah <laughs> waa Kaaru Fajar. mais mais yónnee naa leen euh, li nga xam ne mooyu photo bi. ak yi nga xam ne moom lay yooyu yi muy togg. Mm-hmm. gis nga togg yi. Mm-hmm. yu neex yu baax yooyu muy def. Mm-hmm. Euh, xam nga rek waaw. Euh, jëm nañu jokkoog ki nga xam ne mooy wujjëm bi waaye jotuñu ko. Mm. Oh, su fekkee mi ngi koy dégg su bëggee rek wax mu mu ñëw waaye daal ndaw si nee na daal la bëggu tëddee mm-hmm. te moom jàmm la bëgg wax dëgg yàlla ci jàmm lay dox. mais ñu yónnee photo yi. Oh, yónnee ca boppam. Mm-hmm. Mm, ah, ah, ah, waaw ñu def fii la kii la kii la. parce mm-hmm. que kii nag tiital na wujj de. waaw gis nga gis nga yooyu noonu. kii nag ku mu wujjal wax dëgg yàlla soo moytul soo tëddee daw nelaw. ak see garde rek. waaw en man de man de man de au delà de uh-huh. benn benn benn lu may prêter attention nit ñi quoi. surtout uh-huh. autorités yi. démb yaa ngi ma koy wax. menace de mort. Uh-huh. il du ko ay demal doo def dara ba mujj gi fii la mujjee. ci ay paaka jam la mujjee. barki démboo Njaay Cees noonu. dem na porter plainte kii menacé ko de mort ouvertement hmm. toog nangu ko hmm. dina fa juum fan la mujjee ci rey ko la mujj hmm. il faut que ñu jël au sérieux menace de mort yi ñuy def nit yi sinon rek catastrophe na am te chaque fois ci yi lay mujjee toogaa ci rajo di wax seetaan bi Njaay moom day yëglu na leneen lu ko ci dal nag euh, jëkkëram la d'abord ay mbokkam ak lii passe partout wax ñi nga xamante ne ji ñoo ci war a tax ñu yor wàllum yoon parce que dañuy café yoo xamante ne ji bis bu demee ba jéggi dayoo mm-hmm. mooy maanaam damaa tax moto toog fii nag mm-hmm. moo tax <laughs> waaw <laughs> bés bu demee ba jéggi dayoo comme li passe wax rek foofu lay mm-hmm. mujjee dañuy jël menace de mort yi au sérieux léegi dafa réer borom waaw ah, déedéet <laughs> mais baax mais baax fi ñu toll xam nga la lay laaj laajte waaw est-ce que moom am na permission borom këram avant muy ñëw fi wax kan ci moom femme bi ndax am na ba loolu moom laajuma ko waaye mbir ma. porté na ah, plainte moom nga ca yoon mais sax euh, taal bu tëj tàkk. kon mm. am na. xam nga bu fekkonte ne par exemple bon xaw ma nag nu borom kër gi taxee parce que mënu maa wax lu ma moom dégguma ko. Mm. Mm. mais dama jàpp ne bu fekkonte ne mat na maanaam euh, li mu waroon a doon. Mm-hmm. bi du ko rëcci. Mm-hmm. bay teeree ci ñun. wala ter wala parce que dama jàpp ne femme bi ñàkk xam fu jëm a tax mu dem tribunal ñëw ci ñun. Mm-hmm. parce que bu histoire bi yemoon ci biir kër gi ñu def ko fóotum biir nekk. gëw ma ne dina yegg fii. mais kon Ndiaye mhm. am na ñu bëgg sëy ba tey parce que bu sëy demee ba toll la ñu lay menacé de mort nga toog fa ngay sëyee ba tey ba sa borom kër bu ci defoon comme ni nga ko waxee lam ca war a def yëpp du yegg si fii mu seetaan wala euh, mu soofantal ko ba tey ngay dem di kalaamee ci ay rajo yooyu kon sëy am na ñu mu am na ñoo xam ne am na fu leen toll ba tey. ah mais nag mais mm. nag gis nga <laughs> sama bopp ma la gënal du bañ naa la de coono bi muy dund nii. Mm. xay na daa am jotug wax ko ak xelum wax ko. Mm. toll foo xamante ne ji. Mm-hmm. dootu gisati du déggati. Mm-hmm. donc kon ñi bëgg a sëy mhm. nañ leen jàppale ñu sëy mhm. exact a ah. important ah, en tout a sëy ñu baleen ñu dem man daal xam naa ni ndaw ndaw si man ci côté bi ni mu waxee su fekkee noonu lay doxale man neex na ma man dinaa laajaat de man daal bëgg naa nit ko am jàpp <laughs> looy laaj ba ndax parce que na moo jàppale borom këram waaw ba mu construire fi nga xam ne fa la dëkk voilà est moom mënul dimbaliwaat poëm këram moom defar beneen construction moom mu dem ànd fa ak moom foofu ñu bàyyee kii ak ndaw si amuti mbokk bu ko sëy bi tollee foofu ah man maa laaj de non dafay bëgg a nekk nekk faiseur de roi rek di jàppale ni ñuy tabaxi kër borom këram de moom moom restaurant am la yor restaurant la yor bu moom dañ ko doon xase naan ko waa ginnaaw takk nga ñaareel waa ji doo musa tabax hmm. moom mu ñafe di liggéey di jox borom këram moom tabaxee ba xaw a tàng mu jaay oram borom këram tabax yëkkati ci kaw moom bi mu dafa borom këram dafa njëkk a dugal aawo bi di tabaxaat pour fu mu dugal ñaareel fi muy dugal ñaareel bi soo kii di wax fi bi mu paree mu war a dugg nee na ci ay waxam nee na wujju wa ni ko doo dugg moom ak ay doom ba samedi bi waa aawo bi mais mais baan dogguma la mais na xale yu jigéen yi mhm. moytu benn affaire mhm. nañuy moytu di dugg ci góor goo xam ne am mhm. caatam saxala mag waaw parce que loolu day indi histoire nañu moytu di dugg ci góor goo xamante ne ji. Mhm. yaa kay doomam yéen a maase. Mhm. parce que bu boobaa problème bi du doon yow ak sa. wujju wujju de yaa ak doom yaay doom yi wujjante ah, ah, moo loolu mooy. loolu moom soo ko dégg mooy coalition ànd tas sunu jabar yi bàyyi. ba tey ba tey ba tey ba tey xel mën na <laughs> ko. tas sunu sëy ba tey xel mën na ko nag. gis nga coalition la ñuy def de. dinaa laa jàdde est-ce que awo bi xam na ni. ñaareel bi moo dimbali borom këram bañ taxawal si kër. waaw loolu moom loolu suñu jotee ak jotoog jotee awo bi ci lay leer. bu ko xamul woon it xam na ko bis ni ki tey. Mhm. <laughs> leer na de waaw waaw. <laughs> ñu doxal ci ci jeesneer yi dem. waaw ok jeesneer yi ci Medina gi lañ ko jëlee paas da wax doxalal. femme dóorati femme rek. waaw femme. femme dóorati femme. waaw femme de léegi mu rey femme. waaw moo tax ma naan la femme yàq femme. day liggéey nag jigéen jigéen ju jàmbaare. di jaay jeeseneer fii biir Medina. Mhm. benn ndaw jigéen na ci àll ba. lijjanti mhm. ba xam ko ba xam dafay jaay jeeseneer. Mhm. dóor ko 53 mètres jeeseneer. na mu ko dóoree déglu. si daal dafa ñëw dégg naa si koñ bi di laajte benn tailleur kuy jaay jeeseneer tailleur bi daal koy yabal si benn xale bu jigéen bu dëkk fii si koñ bi mu dem ne kooku jeeseneer laa bëggoon. kooku ne man de jaay ma jeesneer mais xaar ma boole la ak xale mu yóbbu la si kër kii jaay jeesneer léegi bi mu ko boolee xale bi ñëw ba fii laajte ma ne ko waaw am naa jesner mu ne ma war na ma xool yi nga am ma yeb bi wan ko entré ko si biir salle bi yeb bi wan ko parce que suñu kër laay jaayee léegi muy xool di xool dama jesner yi da rafet na te original la ne ko waa jesner bi moom original la mu ne ma man de dama yoroon natt nattu un an léegi nag euh, date bi ma war a teggee nit ñi dafa jot léegi ma ne woon xaaral ma xool kuy jaay original vraiment tuddal na ma sax benn tour commerçant ne ma foofu laa daan jëndee Getzner waaw ma ne ko waa baax na mu na ma waaye Adam ah, man naa diw xamul woon ne bu yàgg dangay jaay Getzner xanaa yàggoo si ma ne ko man yàgg naa jaay jees Getzner kañ mu naan ma diw de moo bon di def comme quoi que ne moom dafa xam ki ma booleek moom te xamul kooku moom da doon rek ñu ñu ñu boole kooku moom mu ñëw tànn tànn tànn ñëw gu 53 mètres. waaw ne ma natt bi nag dafa am ñett ñu si bokk ñoo xam ne ñoom dañoo xaw a compliqué léegi ndax doo ma may ma ànd ak sa jànq bi. dem ba ñu xoolal seen bopp ba couleur beeg motif bi yëpp doy leen ma soog àndaat ak moom ñëw fay la léegi ma ne ko jànq bi de dafa jàpp dafa jàpp tey xanaa mu boole ak sama neveu bi mu ne ma non non bu ma boolee ku dëkk Médina ndax man fii laa dëkk rue 41 man maa ngi dëkk rue 37 mu ne ma rue 41 laa dëkk bu ma boolee ku dëkk Médina ndax xëy na suñu waa dañ koy xàmmee te man dama leen ne woon sama naar. sama client naa bi nekk ville kooku basin original lay jaay foofu laay jëndee foofu laay jëndee basin léegi na ma ne ko kon garaawul ba tey am naa sama beneen neveu boo xam ne moom il est thiessois étudiant la kon tey ma laa booleeg moom sama neveu bi war naa am ay vingt cinq ans kooku du xale mu ne ma waaw léegi si biir wax ji nag mi ngi fi nekk di ma xam naa jéem a kii bari wax daal naan ma ay si biir wax banque laay liggéeyee wëkk ak tamit ñuy waxtaan si àgg mu ne ma man sama jëkkër sax Washington la nekk États-Unis affaire yooyu ma damay faral di voyager ma ne ko fooy dem si Europe mu limal ma ñeenti turu Europe yoo xam ne dëkku Europe yoo xam ne nee na ma yooyu lay dem mu ne ma mais fan yi maa ngi fi waaw dama fan yi maa ngi fi tourné gis ay table à yooyu xanaa mu ne ma dangay wàccee ay meuble tam ma ne ko déedéet sama frère moo koy jaay yooyu waxante nañ ko ma ne ko ma tey dafa tëj boo bàyyi ba dimanche mu ne ma suba kañ première heure dinaa ñëw nga wan ma meuble yi ndax soxla naa ay meuble table à manger soxla naa aussi euh, kii euh, cuisinière ma ne ko waa moom de am na ko boo ñëwee ma wan mu ne ma boo gisee koy jënd ay cheveux nga wax ma ndax damay jaay ay cheveux même or dama koy jaay pris en ndax sama yaay mooy indi or waaw yor naa ay filigrane ak yépp en gros prix à partir de trois bagues xam naa yooyu yëpp daal mi ngi wax rek pour tuur ma lëndam man ndaw si daal ma boole ko sama neveu bi. boole kook sama neveu bi mu ànd ak moom yóbbu Thiès neer bi sama neveu bi nag nee na moom dégguloon bi ñuy wax ne rue 41 la dëkk dañoo génn rek nee na mu jël taxi léegi bi mu jëlee taxi taxi bi di daw di daw di daw sama neveu bi sax nee na moom waxul ma wax taximaan bi tamit waxul mu wax ndax mi ngi koy naan jaaral nii bu jaaree noonu ba si mu ne ko fii tourneel jaaral nele màcc loo na ko fa daal ba si VDN bi nee na si wetu passerelle deuxième passerelle bi defe naa xawma première la wax nee na foofu la leen wàccee bi mu leen wàccee wee ñu yéeg wàcc yéeg passerelle bi wàcc après nee na dox dox dox dox dox dox dox dox dox lu yàgg léegi nee na benn instant ñu taxaw sama neveu bi nag nee na instant boobu ñu taxawee moom si la gëj a yëg li xew xamul lu ko ndaw si def moom daal jékki na te ay midi lañ si jóge presque midi et quelque ba ay trois heures et quelque sama nëfa bi jékki-jékki mel ne lu yeewu daal mel ne lu ginde xibbaliku nee bi mu kiiwee yeewoo xool gisul jeesneer yi mu téye woon xool gisul ndaw si waaw nee na mu làmb poosam bëgg maa woo téléphone làmb poosam aussi gisul téléphone am si la daal di xam ne ndaw si def ñu daal di ñibbisi euh, wax bi ba tey léeg mu yëkkati téléphone bi ma koy jaay jees ne bi si saal bi léeg mu jël téléphone am def semblant mel ne kuy wax ak xale bu jigéen bi ñu boole naan ko diw jeesneer yi waa maa ngi xool moom kañ maa ngi xool jeesneer yi moom rafet na couleur am yi rafet na motif rafet na affaire yooyu waaye lu tax mu waxoo ma woon ne kii day jaay jeesneer te man ni may jënd si jeesneer ah, tout le temps dama koy soxla billaay yaa bon waa xaaral ma bàyyi la ndax ñu ngi tànn te pareeguñu di def semblant noonu. doy na waar daal doy na waar moom même bu ñëwul sax nit ñi tam yeewoo ci yeewoo ci di def très attention. parce que ñii dafa mel ne bu ñuy ñëw dafa am lu ñuy àndal du ñu ñëwee neen ndax man bi mu jëlee jees neeri ba génn sama kër ba mu génnee sama kër ba pare rek laa mel ne ku jaxasoo ne waa man li ma def est-ce que xam naa ko daw génn topp leen gisuma kenn jaar 41 gisuma kenn. waxoon naa leen xaalis mooy jëlee ma mooy jëlee marchandise ci. ci boutique ci boutique. waaye ay boole naa la ak jéego yu kenn xamul yëpp yàgg nañ leen ko def. Mm. voilà su ñuy daal am am. waaye boole maag nit ak yu kenn xamul sooy génn mu koy mu koy kii. xam nga xam nga li may faral di wax kiy jaay. Hmm. kiy jënd moo ko fa bàyyi. Hmm. kiy jënd nag bu ñëwee pour nga nax ko day yoom parce que yor nga marchandise. Hmm. def na sa boutique une semaine wala deux jours sa dépend nit ñëw ne la damay jënd. da nga naan li tax ma sonn ci dem Dubaï wala Chine bon pas Chine dem Dubaï wala feneen wuti ko fa. indi ko fii. ah mais pour ñu nax ko ca day yomb. te waaw ku dugg sa boutique. Mhm. yow mi ubbi di jaay. Mhm. client koy xool. voilà ngi noonu moo tax. mais mais nag ñaaw njortu. Mhm. ku nga xoolee ko beneen bët kon di nga ñàkk ba ñàkk ay clients yu waaw ay clients yu baax. mais nag jaayam jaayam hmm? boutique ak jaayam biir kër tam bokkul de. jaayam boutique ak jaayam biir kër xam nga ki xam dafay dem di voyage yi ne machine dem toog këram di jaay. am ku jógee fële moom boole ak mais jël la peine au moins sax quoi fekkee xamuloo mosoo gis nga dëkk ci koñ bi. nga woo diw ma la boole moom bu pare. parce que dëkk fi mu doon dafa toj. Mhm. ñu lay nuyu di la nax. Mhm. ñuy ñëw sa kër di laajte laajte lu fekk xamuñu la. Mhm. doole dem seen yoon dañ fee bari. nit ñi il faut ñun wax nañ bay bëgg a dee. c'est-à-dire ah, fii ah. nii. président gis nga corona bi ñuy wax ne nañuy raxasoog nañuy bàyyi nuyoo yi. kañ lañ ko commencé wax. boobu corona ah, boobu corona xewul. bàyyi leen nuyo bi te gi nga gi nga. waaw gis nga yow heure bi jot. waaw naa heure bi jot loo xew noonu. nit ñi kay nañu raxasu <laughs> nañ raxasu ba pare e, e, état bi. na wax dë avion yu jóge Europe. fi feebar bi am. nañ leen wax ñu toog ba yëf yi wàññiku loolooy dëgg yëf yi bitim réew lay jóge mhm. pour ñu bloquer ko carrément. nañu jël avion yuy jóge Italie ak France ak ak fa fépp fu feebar bi jóge mhm. avion yooyu ñun leen nen leen toog leen ba yëf yi wàññeeku. àdduna bi dafa yëngu.